nuyu naa la. Bour Gueweul maa ngi lay fay. Euh, ku ne xam ne ni semaine bële passé ngeen doon rendre à la Doudou Rose li nga xamante ne que moom mooy mémorial est-ce que bés bi ni ngeen ko bëggee ñu ko bëggee woon amuñu ko mais yaakaar naa si organisation la ak euh, sët bi ko def muy sëtu Doudou Rose parce que hommage Doudou Ndiaye Rose bi ñu woon doomi yee ko def di ko def sëtu Doudou Ndiaye Rose jógee Hollande ñëw di rendre maamam kenn mënu ko ko def donc moo ko organisé période woon ñëpp jullit loolu moo waral mu am faay boobu mu am noonu mais kontaan nañ ci parce que amuñu si benn bor def nañ ko ni ko defee ni ko war a yëg yëg nañ li mu liggéeyal Sénégal est-ce que autorité sénégalais yi jàpp nañ ci wala dugal nañ seen loxo comme ni ngeen ko bëggee woon non dama yaakaar ñu si mooy li ma la wax si commencement bi léegi euh, hommage du Rose bu ñu koy def yaakaar naa ni autorité ñoo si war a njëkk a mais man merewu leen merewu tamit nguur gi fi nekk li tax merewu nguur gi fi nekk mooy sama papa am na cër boo xam ne ci ci ci gouvernement Macky Sall amu ko woon peut-être ci yeneen gouvernement yi fi jàll parce que DSO nekku fi mais lépp lu ñuy séddale jëwal ci Sénégal cëru du Ndiaye Rose mi ngi génn njabootam ñu ngi koy jot di ko jaarale ci ki nga xam ne mooy honorable député Farba Ngom mu di ko teg ci loxo Cheikh Tidiane Mbaye di coordinateur mouvement sa dëgg-dëgg mu duñu ko jox muy tabaski dañuy jot comme tout le monde muy korité dañuy jot comme tout monde lépp loo xam ne tamit xew na ci réew mi loo xam ne jëwal dañ ci war a bokk famille du Ndiaye Rose mi ngi si taxaw te dara waralu ko lu Farba kon daal pare ngeen pour euh, rendre ko beneen hommage boobu. waaw ñu ngi koy wàcc nag pour préparer ko déwén ak doom yëpp nag. Hmm. def ko boo xam ne yaakaar naa ne bu ko rogee ñëpp dinañ ñëw. ku ne xam ne ni bokk na ci dénkaane yu mujj mooy du woon nit ku bëgg hommage waxoon na ko ci bi muy euh, bu ma seen bu ma kenn rendre yenn hommage yi ci sama gannaaw wala di ma tuddee mel ni mbedd wala mel ni mu ni waaw sa bopp moo waxoon ne bu bu génnee àdduna du ko kenn rendre ko wax mais bu ñu koy wax ñun taxuñu woon ak population bi. ñi doon ñi taxoon mu waxoon mooy état bi nga xam ne bëggoon na ubbi école am bëggoon tamit ñu jàppale ko moom mu ubbi école am sama papa jooy na ñëpp parce que waa japonais yi ak waa UNESCO ñoo waxoon dañ koy jàppale pour mu ubbi école nekkoon wutal état senegal ak ah, jox la terrain ñun waa UNESCO ak japonais ñu liggéey école bi donc sama papa terrain loolu jooy pendant que muy dund boobu mu dee ba xam ne jëm na mag te boobu ba léegi mu ko bëgg amu ko mu ne kon bu fekkee ne li ma bëgg defal leen ma ko ci samay dund su préféré bu ma deewee ngeen defal ñetti xulalaam te bu taxuñu woon que ku dee ñu ran la au ku dee ñu am lu ñu tuddee kon moom dafa am lu ko metti mais du si doom yi ak jàmbur yi merci beaucoup merci